سفر بنزة dalee na jàmm ki seen journal du jour safar ay machine yuy defar café Touba loolu la ki nga xam ne moo di doomu mbuur bile di physicien nekk chercheur di Malick Ndiaye daal di defar te it lu ni mel wàccoo ak it xeex jàngoro bi di Covid 19 ci bañ laalante ak bañ a jogalante Moustapha Sall moo ko demal nemmeeku moom moom la di Malick Ndiaye sax mi ngi wax ne. ñoom ñi yëngu ci wàllu xam-xam ak xarala ak it di defar ay jumtukaay soxla nañu jumtukaay yooyu di yemb ak di ñu mun cee jot nikki noonu.

jafe donc loolu moo tax ma ma machine bi ma tuddee ko jaay sa bopp daal beneen bi maa ngi tuddee kaay xewlu parce que tey boobu demee si buntu partout da ngay yi taxaw di maye café ak yooyu des fois des fois dañ lay woo moo a nekk salon yi mën a nekk partout ku bëgg a café bës kaas mu jox la kaas après nga bës mu jox la café donc te ñoom machine yi ñoom du jël courant donc c'est rechargeable bi chargé day mën a daw guddi

ci fi nga xam ne fa la ñuy defee màggal gi di dëkk Touba boobule ban wàccuwaay la am ci biir yoon wii lan mooy gëddëm ak li nga xam ne moo ko wutee lekk yeneen dëkk yi ak li ki sëriñ bi ñaan leeral yëpp dañ ci ànd ak sëriñ Ahmad maxtar Sylla soo demee ci mbindi sëriñ bi it da ngay gis ni Touba moom am na fa wàccuwaay bu kawe am na fa wàccuwaay bu kawe mu ngi ñaan ci mat la Matlabul Fawzayni ay ñaan yu kawe yoo xam ne lépp ci dëkk bi ak ñi nekk ci dëkk bi rek la ko jëmee boo demee ci lii sëriñ Mbàkke Buso nat liit dafay wax ni sëñ bi amoon na ñetti projet yoo xam ni moom la bëggoon a def tubaa muy tabax fa jumaa ju rëy dafa jàngukaay boo xam ni fu nekk la nit di jógee dafa jàng si moom la sëñ mu Mouhamadul Mountakha tàmbali di def nii yàlla na ko yàlla eggale te mu inauguré ko te jiite ko at yu yàgg waaye it mu am am ndox moo xam ni ndoxu robinet la ndax noonu la ko waxee woon waaw fam nun ala al ahli bi ma in jaari wa maskani sallim min al fujjaari wam nun ala al ahli bi ma in jaari mu wax ni sama dëkkukaay bii di Touba na musal ci ay malfaiteur maskani salli minal fujaari da nga ko ci musal waaye it na nga may ñi fa dëkk sama mbokk am ndox bi maa in jaari ndox mën nañ ko firee ndox bu rabi na mu ñaanaat nii wal tajcalalha maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi na nga ko def bërëbu jàngukaay bërëbu xalaat ah mu ñaanaat fu baree bari ci ay mbindam te wax ni na nga ko def dëkk bu am protection wajaal xarimana xariman amina wa kun bi xifsihi kafilan damina na nga ko protéger na nga ko protéger sàmm ko te nekk son protecteur kon daal wax dëgg yàlla Touba moom dafa am wàccuwaay bu kawe kawe kawe ci mbindu sëriñ bi ci ak nekkamit ci la yabaloon Cheikh Ahmadou Moustapha Cheikh Ahmadou Fadal ñu dëkkoon fi ci ak nakam it ci la lijjanti woon autorisation de construction de la grande mosquée de Touba ngi amoon yéene ji amoon financement bi ak lépp kon Touba moom dafa nekk dëkk bi sëriñ bi gënoon a fonk ci kaw suuf moo tax képp ku fi nekk war ngay fonk war may dëkk bi ngir fonk ki ko borom fonkoon nga xam ni am na jamono yoo xam ne dundub Touba sax ci sàq moom mu nekkoon daal xudus ci lañ ko daan def loolu ginnaaw sëriñ bi la kon daal sëriñ bi wàccuwaay bi mu jox Touba kawe na lool. te jële rabbi bi maa yashraaw la ñuy waxtaanee ànd seek oustaz Mbacke Sylla ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu suñu am di Moustapha ñoo ngi lay fay nuyoo di nuyu auditeurs yi ñuy topp ci 18 safar di ñu topp ci xuus ci xasida yi tey nag ñu war a waxtaane xasida gi nga xam ne mooy rabbi bi maa yasraul ashaana qad fajaha nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko tënkee ci yaa rahmaanu yaa rahimu maanaam turi borom bi subhaanahu wa taala yi nga xam ne suñu borom def ci wax yërmandeem nga xam ne arrahmaanu arrahim mooy li nga xam ne daa ëmb yërmande sëriñ bi moom la jël bind ci bind bu am solo bii nga xam ne boo demee ci tarjumani téere bi ginnaaw bi mu jullee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni mu ko baaxoo defee ñaan barke ñaan xéewal gu tasaaroo waaye nag dafa ñaanal yërmande ci mboolem ñi nga xam ne ñooy ay soppeem ak ay noonam daa wax ne borom bina def barakatan boo xam ne yansuru biha barakata arrahmaani ala ahibbaihi wa ahdaahihi wa yansuru biha barakatu arrahimi wa aw barakata arrahimi ala jamii ahibaahihi wa taqabal haathihi al abyaata minni bi qadri azamati saati sëriñ bi dafa wax ne euh, mi ngi ñaan yërmandey borom bi mu tasaaroo ci ay soppeem tasaaroo ci ay noonam mën naa ko waxee noonu ci tënk ci biir xasida googu nga xam ne moo tàmbulee ci rabbi bi maa yashraul azhaana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad lajaa euh, boo demee ba ci biir daf cay ñaanal yërmande mboolem ñi nga xamante ne nii ñooy xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ut xummatal wala wala xut ummatal Moustapha an kulli mafsadatin wal tarxamil xalqa yaa man jaddahum badaa daal di wax waxam juree ji nag ya ngay xam ne sëriñ bi euh, wooteem bi xatut dafa yaatu te jullit yëpp a ci biir yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamial wara yaa haadiyan radaha nga xam ne sëñ Moustapha sëriñ bi bi muy woote tarixa bi mu woote murit la ko tudde euh, nga xamante ne du amu sant du amu dëkk du amu melo waaye képp ku jëm ci yàlla jaamu yàlla ga ñor la yaa nga ca biir bi muy sañ ci ay dëkkam turi dëkk yi tur la ko tuddee yoo xamante ni yëpp delluwaayu képp ku gëm la jëlal daaru salaam daarul xuduus daarul mannaan daarul minnan eh, nga xam ne ay daaru la waaye yëpp day dellu ci turi borom bi subxanahu wa waaye day dellu ci melokaan yi nga xam ne melokaan yi xéewal la bi muy ñaan itam lu waa këram dong. ñaanalut ñu ko gëm dong waaye ñaanal na ba ñaanal ñi nga xamante ne sax doonuñu ay julit ci waxin yërmande yàlla la ñaan mu ñeel képp koo xam ne yaa ngi bokk ci alwara képp koo xam ne yaa ngi bokk ci albaraya képp koo xam ne yaa ngi bokk ci mbindeefi rek sëriñ bi neena na irham jami alwara ya hadiyan radaa loolu nag wàccuwaay bu rëy rëy la boo xam ne day tegtale ne bàyyi woon na xel boroomam waaye bàyyi woon na xel itam li nga xamante ne nii moo am solo ndax li jumlatil xalqi la wax maa yaxtaaru man baraa addu oo ilahi alladi amat mawaahibuhu li jumlatil xalqi maa yaxtaaru man baraa naajaytuhu jalla awaaman wa karramani takrima haadin wa kulli min laxan bari a rahmaanu hëpp li jamii il rahmata man yuxni ani charri man qur'anahu qaraa noonu la ko jàngee ba xasida gu am solo googu jeex nga xamante ne kon mooy rabbi bi ma maa yasraul asxaana xat fajaa loolu mooy suñu bindu tey yal nañu yàlla may ñu dund ba ba ta weesu ko daa ñu ñëwaat ci geneen xasida incha allah fi la ñu yëkkatee gataayi di safar bi ba ëllëg ak jàmm safaru